di am mbégte ci suñu génn bu njëkk ci bésu tey namoon nañu tàmbali ak yéen waaye dafa fekk fan yi ñu génn li ngeen ñu dénk ñuy seet yoon yuñ ko gën a ñoŋale duñ ko gën a taarale duñ ko gën a dëgërale pour yaakaar bañ a tas ci mbir mi ñu jëloon nag engagement ak ay kilifa waroon waxtaane ëllëgu dëkk bi moo waral nag suñu tardé ci mbir mi di sant ci génn bu njëkk bi nga xamante ne symbole bu rëy la ci ñun maanaam diggante ak ahlu laay muy Seydina Limaam alayhi salaam ak yoof lii tey ci li koy suuxat ci la bokk ndax yoof nuñ ko tudd génn ci Seydina Limaamu te Seydina Limaamu moo jël yoof tafal ko ci boppam ak njabootam Seydina Isaa roolaay alayhi salaatu salaam maam naa ma joon suma ma dijaay Seydina Isaa bay Seydi caw maam Raan ba sëñ Ablaay ba Seydina Amadou maxtar ñëpp jëlaat yoof boole ko ci seen bopp donc ñu teewee tey lii muy suñu génn bu njëkk dañ koy sant suñu borom am yaakaar nag ca la ca kanam insha allahu rabbi thème bi lu am solo la ndax booy jàngat àdduna jàngat doxalinu dëkku tugal yi am na lu ñuy wax indice d'islamicité maanaam indice la boo xam ne dañ ciy saytu ci àdduna bi yan dëkk ñoo topp jàngaleb suñu borom ci alxuraan yan dëkk ñoo topp li nga xamante ne mooy recommandation wala xaddis yu yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo xoolee loolu dëkk ya ci duñu ay dëkki jullit daw nañu lu bari fanweer ak juróom-ñetti dëkk sa jiitu duñu ay dëkki jullit ba ca tegu nag muy Malaisie di pays musulman Malaisie mën nañ ci joxe exemple ci wàllu économie islamique ci wàllu finance islamique waaye dëkk ya njëkk boo fa demee muy Nouvelle-Zélande Irlande dëkk nordique yooyu jàmm moo fa am seeni kaso amul nit dañ koy loo yeneen i dëkk ñu fay indi seeni nit te dañu ne dëkk yooyu duñ ay dëkki jullit waaye recommandation bu jóge suñu borom subhaanahu wa taala ak yonentam bu sell bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo ñu ko gën a appliqué ñun ñu ne gën nañu la suñu borom wax parce que booy def classement sur 180 pays fanweer ak juróom-ñett yi dañu ay jullit kon nag ñu war a seetaat ñun suñu bopp mooy lu am solo loo xam ne ah war nañu interpeller ñun ñu ne gëm nañu boo demee dëkk yooyu amuñu extrémisme xamuñu ko da ngay dem ba ci dëkk yooyu ñu jiite sax police ba ay jullit la ñuy doon teg si doon sax jigéen donc tolérance am na fa justice sociale am na fa te loolu yëpp boo ko jàngatee suñu maam yi fi yàlla wàcce di maam borom Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke di maam Seydi Haaji Malick di maam Seydina salaam dañ ko jàngalewaat ci seeni i waaye terewul am na doomi dëkk bi yuy jug di dem jihaad kon échec am na fu mu am échec na fu mu am la koy sooxe lu ci bëri mooy inéquité maanaam ñàkk a yemale injustice te Seydina Aliou moom ci jàngaleem rek justice sociale la njëkk indi dàq sant na ñëpp sol weex maase doon benn joxe culte du travail culte du travail tey boo ko jëlee boo demee si waa kër ma du Ahmadou Bamba Mbacké modèle économique yi ñu développé ba taxawal seeni projet wan na ne mag ñi secret yëpp doxalin yëpp bàyyi nañ ko fi léegi nag nañu dellu ca cëslaay ba ca cosaan la muy si njàngale mi ak naka la ak nan la loolu it mag ñi ah ay taalibe lañu ay aspirant taalibe lañu duñ wax ne fii lañuy jaar mais ñun dañuy gëstu rek pour xam ci géopolitique gu àdduna lan mooy jafe-jafe àdduna lan mooy yoon yi mais loo ci gëstu day ñëwaat ci jàngale mag ni donc nag a ah, sang bi ñu ngi leen di tàllal loxo ci ñaan yi ñu ñaanal sànq Yoff nekk un modèle bu war a tàggataat ay ndawam war a tàggataat la nga xamante ne mooy dëkk bi ci doxalin ci pencoo ci waxtaan ba lii nga xamante ne mooy thème bi appelu déwén bu ñuy ñëw ñu gis ak coppite ci comportement ndaw ñi lu tax ndaw ñi boo jëlee fukki nit ci réew mi juróom-ñaari ay ndaw lañ donc rôle la ci li ñu dénk ñu war a njaboote ñëpp war a porter une justice sociale ànd ceeg kilifa diine yi kilifa cosaan ak aada yi nag commencé nag dox ci lu ñuy may équité ci dëkk bi may ñu justice sociale ci dëkk bi ba noppi nag li ci am solo bañ a fàtte nit ki ndax ba ñuy uti nee nañu balaa ngay defar dëkk defaral nit ki boo defaree nit ki ci xam-xam ci wér yaram ak ci aspect bu am solo ci jamono ji fa laay tëje muy aspect autonomie économique et financière jàpp nañu ne xoli dina dal dina féex te xol bu féex bu dal day dalal xel dalal jikko dalal comportement ba lii nga xamante ne mooy thème bi dinañ ci am ay solution mu bañ a nekk daje waxtaan daje gërëmante mi moom un suivi bu ñuy engagé wu ñun jël ci école yi ci daara yi ñu namm accompagner incha allahu rabbi ak kilifa yi balaa demee incha allah sëñ Cheikh ñu am si jeexital yu wóor ñu xam ne lañu ñu fi dajale woon ci bésab tay bi di le 19 février at ba ca topp gis nañ ci ay firnde yu wóor ci jeunesse bi loolu laa amoon ci kàddu yi may wax di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah